ñu dem ci euh, premier élément bi ñuy déglu Abdou Top ñu dellu si waat moo tax ñu wax nit ñi nag nii ñun dinañu xeex man de li may wax li ma waxoon 2021 lay waxaat constitution dafa ne ku ñu a jaay doole am nga sañ-sañu xeex am nga sañ-sañu résister Macky Sall dafa a xam ni. li ko tax a sonn mooy nu muy def ba toogaat ci réew mi tée réew mi su ko jaralee benn ñun li ñu tax a so sonn mooy fexe ba réew mi teguwaat ci yoon démocratie ñëw fi alal réew mi des ci réew mi sàcc mi jeex fi loolu jaral nañu téeméer moo tax bu yaakaaree ni police ak gendarmerie moo ñuy tiital ñun ndax na boppam injustice bi bëri na ci réew mi manifestation sax mënatuñ ko def te chaque jour ñu autoriser leen ñoom loolu ñëpp a ngi siy teg seen bët may wax ni droit boobu ma waxoon man 2021 ne j'invoque mon mois moi Ousmane Sonko mon droit personnel à la résistance ñu dem créer seen dossier ne appel à insurection tey laa ko gën a wax ni buñ ci tollee parce que mi maa ngi dem de mais dinañ xam ni mën nañu la ñuy def te ñeme nañ ko. booy dee ci àll na la gaynde rey booy daanu na nga daanu avec dignité nit boobu sa dignité jóge fii dara desatu fi man loolu laa gëm te gëm naa ni ñu ànd ak man yépp loolu lañu gëm ma yokk ci nag nii jërëjëf euh, Abdou Top loolu la euh, image yooyu la jëli ji woon démb moom ak Baye Assane Mesere xam naa suñu paree rek incha allah fii ak ngoon di ngeen sax am reportage bu fa Baye Assane def ak euh, pro Sonko yi foofu la ca buntu conférence de presse bañ pare ngoon gi itam bi dina leen deflaatal replay conférence de presse bi intégralité ngeen mën koo dégluwaat Assane Ousmane dugg na fu bari ci ay wax am na ay booy yu bari yoo xam ne gis naa daal démb ñuy vrai après kii bi dañoo jooy que Ousmane Sonko dañ ko dañ ko dañ maanaam dañ ko néewal doole ci Sénégal tere koo génn di ko traité yu baree bari dem ba kiñ ñi moo ko violé seetal na ko ci ay audio ñëpp xam ko ñëpp teg ci seen bët nga xam ne léegi amatul dara lu ci ump Sénégalais yi teewul ba léegi ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy kall-kallee bëgg ko yóbbu procès yooyu bi nga yow ma fa demoon dem bi nga diglu Ousmane Sonko ba mu jeexal tàkk loo jàngaat ci mbir mooy dañ ko bëgg a tëj mu bañ. lii ab ja loolu ab jàngat la. waaw dañ ko bëgg a tëj mu bañ. waaw waaw léegi moo tax loolu tëj googu nag moom laa la jàngat loo toj ko il faut nga toj maanaam Ousmane Sonko li mu wax démb moom laa la toj loo. non <laughs> si toj ku mu bañ du ngeen ma tëj. déet anniversaire bee ah, <laughs> bi wax nga parce que nee joxee guñ. waaw waaye Assane gars yi dañ koo dig te ñëwaguñ muy bañ jàngat fi lu tax affaire yi du ñëw Assane bu ñu fontoo. Assane tojal li jàngat naa loolu dañ ko bëgg a tëj. waaw mu bañ ni kenn du ma tëj. waaw moo tax ma ne mu xam ne am na lu tax ñu am na lu tax ñu wax ko bëgg a waaw mu bañ ni du ñu ma tëj waaw mu xam ne bu yemee si duñu ma tëj gars yi mën nañ ko jéem a tëj mu dénk boppam askan wi comme nañ ñu dénk woon boppam askan wi nag duñ nangu ñu tëj ko jeex joxe hélas déedéet déedéet loolu Assane gis nga Assane yow yii boo ko dee def nag dootoo dem conférence wallaay toj naa li ma toj nii li ma toj nii kilifa diine yi ci réew mi waaw mu ngi noonu dañ ko bëgg a tëj mu lànk ni du ngeen ma tëj daal ni askan wi dénk naa leen sama bopp ginnaaw yàlla waaw léegi Ousmane mi nga ne jàkk démb yow ma fa demoon mm-hmm. ndax Ousmane mu wuy ji la wala lay la lay nuru toba ngay laal ah, Ousmane muy <laughs> yaa nekkoon avocat <laughs> te nga noonu ñëwal tax yoo <laughs> xam naa daa am lu muy réglé rek ñëwal ah. dama ne yow mi fa demoon démb mm. ma ne man Ousmane nga gis démb mm-hmm. maanaam Ousmane muy wuy ji wala Ousmane mu nar a mu nar a xeex nga gis. non Ousmane moom fi mu nekk nii li mu wax daa leer raag. waaw ne réew mi fi mu toll nii mënut a ñàkk ñu xeex xeex gi moom mënut a ñàkk. waaw xam naa ne gars yi moom duñ ko tëj mais bis ñu ko wooloo pour mu war a wuy ji si borom xam-xam yi li ñu jàng si luwaag yëpp nee nañu il faut bu ñu nee suba la ñu arrêté ko yóbbu ko kaso. bu ñëwee suba lay dem procès. waaw loolu loolu mooy am. loolu mooy am nee nañu après bu jógee kaso day aw fi moromam aw ñu wuy si ñu àtte même bu amee dëgg buy dellu day demaat kaso signé pour génn. ah oui waaw ah, dugg kaso googu yi nag bis bu nangoo procès bi day am te loolu lu mën a ñàkk la loolu lay bañ. d'accord am na it borom xam-xam yu ni mën nañ koo comprendre buñ ne suba la mu ñëw signé. daal ni suba dinaa ñëw d'accord ñu may ko mu fanaane waat këram mais yooyu yëpp ay détails la yoo xamante ni daal fii réew mi toll moom. Hmm. da ngay reebatas. d'accord Alaaji yow démb déglu nga Ousmane Sonko ba mu jeexal tàkk. Mm-hmm. xam naa ñu ngi ci décision finale yi nag léegi comme procès mooy dem léegi yow bi nga digloo Ousmane mu leer ne moom bii moom defe naa mooy dernier génnam ci dossier bi avant procès loolu laa yaakaar. Mm-hmm. noo jàngatee Ousmane mi nga gis démb. waaw d' abord euh, démb de suivre nañ discours bi. Mm-hmm. déglu nañ ko euh, te jàpp naa ne am na lu luñ ci dégg. waaw donte nag euh, nit ku ne moom li muy wax ak li mu jublu ci wax ji. léeg-léeg dañuy def li ñuy tuddee tàndale. tëndale waaw waaye jéem a xool ci sunum xel daal li nga xam ni moom lañ jox cela ne ni li ñuy wax. moo nekk mooy li wér. waaye li ñu jàpp ni. yëf yi nii la kii loolu mooy li nga xam ni moom la ñuy wax maanaam daal sunu ngëm-ngëm. Mhm. ci la ñuy wax. bon bu ma analyser discours Ousmane Sonko. Mhm. te jàpp naa ni discours la boo xam ni. Mhm. li ci ëpp. Euh, bitim réew la waxal. wax naag wax naag askan wi waaye wax naag waa bitim réew. ci naka wax naag Afrique. Hmm. Euh, parce que Ousmane Sonko nag euh, bi nga xam ni deux mille vingt et un ak léegi. Hmm. Ousmane Sonko beneen niveau la toll. parce que léegi buy wax. Hmm. du Sénégalais yi rek koy déglu mais Afrique ñoo koy bàyyi xel. si àddina dañ koy déglu di ko bàyyi xel. loolu nga xamante ni bii nag mi ngi tenir compte ci loolu. boo seetee tudd na ay dëkk. tudd na Mali. Mm-hmm. tudd na Guinée. Mm-hmm. tudd na Burkina. Mm-hmm. tudd na Côte d'Ivoire n'est-ce dëkk yi mu tudd nag man dama gis ni ay dëkk yoo xam ni sës nañ ci senegal rek. waaw euh, ku ci mel ni ay Guinée ak ay Mali ak yooyu te boo seetee suñu relation. jàpp naa ni fi mu toll nii actuellement ak actuel président bi euh, demeewut nend ni ah. euh, te Ousmane Sonko cité na leen. ñu bëggoon na fa dem li nga xam ni mooy dëkk yooyu. kon am na ay relation yoo xamante ni bi léegi gën na koo am que Ousmane ni mu nekkee woon bàyyoo ci jamono ji nga xam ne moom lañ doon kii ci jamono jiixi jaaxa bi mu mettee dëkk xamagul benn président. waaw ok léegi am na beneen euh, kii boo xamante ni bi nit ñi ñu ngi ko koy xoolee. loolu mooy li nga xam ne moo ci ne. Mhm. léegi nag man affaire yi ni ma ko jàppee ay pion la lu gars yi di dox. piyon bon man dama jàpp ni bu fi mu toll nii. Mhm. ku ci nekk da nga teg pion. kan ak kan maanaam maanaam kan ak kan. Euh, euh, li ma jàpp mooy Ousmane ko daf ne complot la. n'est-ce pas waaw complot dama jàpp ni bon ne justice état moo ne ci ginnaaw. waaw moom dafa jàpp ni lii ñu def nii. Mhm. benn pion la boo xam ne bii man jàpp naa ni moom lañ teg. lii ñu def su ma la déggee mooy lan. mooy procès lii ñu jël ne procès. d'accord parce que mënoon nañu wax procès wax date bi. waaw daal ne jàpp nañ kii le fait jëluñu date. loolu dañu bàyyi benn bunt parce que tey bu ñu nee procès jàpp dat mm-hmm. ne nangam peut-être mën nañu bañ a reculer ci li nga xam ni mooy loolu. waaw mais dañuy procès bu procès. Mm. dal di taxaw léegi pour man procès boobu dañu doon xaar retour di xool ba xam nan la kii parce que affaire dañu nekk ci guerre stratégie lañ nekk fi mu toll nii. Mm-hmm. ku ci nekk mi ngi teg ay jéego. Mm-hmm. maanaam euh, xeex la boo xam ni kenn wóoloogut a kii parce que waa ji mën naa laal nguuram jeex naax saay ba faaw. mën nañ nag laal tamit ñu ngi soor ni ñoom mën nañoo laal seen nguur jeex que ni mën nañoo laal tamit jàpp waaye fan na affaire yi tool ndax dana nooy wala du nooy parce que mm-hmm. depuis quelque temps président ñi ngi koy dajaleel ay ndaw mm-hmm. yoo xam ne xamul ndaw yi nu mu ndawoo mm-hmm. ndax ndaw yu ndaw lañ yu daw ñëw lañ wala ndaw yoo xam ni dañ leen a organiser indil leen ko comprendre nga loolu il faut que ñu def beneen stratégie parce que tamit dafa am ay yu bari yoo xamante ne bi dafa am France a ngi ne di xool bërki Dembo njaay am na loo xamante ni bii nit ñi wax nañ ko diggante Sénégal ak France ak et cetera ak yooyu ak yenn yoo xamante bi am na France ay intérêt bari na ci dëkk bi mm-hmm. yoo xamante ni bii tey am na lu dëkk bi di demee perdant lay ne bëri te Sonko bi mu tuddee dëkk yi mu tudd mm-hmm. boo seetee Russie mi ngi ci waaw diggante mi ngi Burkina mi ngi Mali. Mali mi ngi lii ak est-ce te bëggoon naa dem ay voyage ak yooyu yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni bi ñoom it dinañ ko calculer dinañ jéem a def attention jéem a xool waa ji lii muy wax ak ni mu waxee lan moo mën a xew ak lan moo mën a am. Mm. léegi yooyu yëpp nga xamante ni bi nag moom la léegi nag Ousmane ko moom it euh, def na benn stratégie. moom it mm. nee na dinañ xeex waaye moom it wutalu ko dat <laughs> maanaam comprendre nga ñële jàpp ñu dat moom it jàpp ñu dat waxu ne xeex bi tay la waaw ñee waxuñu ko danañ ko def ñee waxuñu ko procès bi kañ la moom it waxul xeexam kañ la moom it xamut kañ la d'accord léegi nag hmm. ci lii ñu nekk nii yëpp hmm. avocat yi ñoom it ñu ngi dem di lool te wane na ni wóoluwut juge bi liggéeyut li mu war a liggéey donc li juge bi liggéey yëpp sànni na ko fële ci mbalit ma nee moom juge bi moom ab politicien la ko jàppee yaa ngi dégg politicien la hmm. donc lay considéré tout ki nga xamante ni kii moo nekkoon juge bi Mm-hmm. léegi problème bi nag euh, mi ngi noonu. léegi nag boo nee bon quel que soit alpha comme que jàpp nañ datu procès day am quel que soit alpha nii lay demee nii ak nii. Mm. léegi bi mu waxee nag ba noppi rek li ëpp solo ci mbir mi. waaw mooy li Ousmane Sonko wax da ne. Mm-hmm. yàlla rek laa yaakaar. waaw loolu la wax. waaw daal di ne de lu sunu borom dogal mooy li mën a am. Mm-hmm. dal ne nag askan wi dénk naa leen sama bopp. waaw léegi nag réaction bi nit ñi doon xaar. Mhm. man jàpp naa ne bi mu waxee loolu. Mhm. mooy nan la askan wi di ko démb moom leer na ma ni. Mhm. ñii kiiwal président Macky Sall yëpp ñi ngi ci TikTok yi. ñi ngi ci YouTube. ñi ngi Facebook ñi ngi xool. ba xam lan mooy réaction. askan wi bi askan wi war a amee. ok comprendre nga. si par contre nag bon gis nga ni tamit euh, ci xam nga réaction parce que li tax ma ne la ñoom ci kii parce que mën nañu contrôler média classique bi hmm. mooy tele yeeg rajo yeeg et cetera <laughs> ñooñu hmm. la plupart télé yeeg rajo yeeg yooyu ni ñi seen njiit di gisee boo defu ndànk bu ñëwee façon ngu boobu la ñuy yor di hmm. jéem a nelawloo nit ñi mais réaction bi nga xam ñuy war a ak kii nekkuñu foofu ñooñu du ñu ñu sax la plupart ñu télé di invité wala rajo di leen invité mooy ñi nekk ci réseaux sociaux yi ñooñu la léegi moom leer na ma ni seen regard démb fi ñu ko teg. ba tey jii fi ñu ko teg. mooy nan la booy di war a comporté woo. ci réseaux sociaux yi ndax booy ña nga ca wala néewuñu ca. léegi nag démb na boo xoolee nag booy ni ñu comporté woo ci réseaux sociaux yi da ngay gis ni. nañu déterminé woon. yokk na man boog bu ma doon conseil tey président Macky Sall. dama naan ko. waaw wutal pexe. Hmm. pour reculer. parce que attention de. Hmm. mi buum gi. ba léegi moo ko téye. waaw waaye gis nga am na jéego bu muy teg. Hmm. buum gii bu ko rëccee doo ci jàppaat. ah oui parce que dégg nga lii lii lii soo ko wax. comme te gis nga tey jii kilifa diine yi bu ñu jógut wax ci période bii. Hmm. maara day taali bu Sénégal duggee ci lëndam. Hmm. <laughs> amut kilifa gi guy wax bu gars yi di déglu. non non non su wax fii la jotee. su boobaa day trop comme la amoon bee paase li gars yi di wax naan la amoon du amaat dëgg la de. li amoon du amaat. parce que li amoon reculer ci la nekkoon deltu ginnaaw ay kilifa diine wax nit ñi tegaat ngànnaay yi ci suuf arrêté lépp jàmm na ñooy. Uh-huh. waaye gis nga fi mu toll nii nañ ñaan sunu boroom. Uh-huh. réew mi bañ a dugg. Uh-huh. ci fi mu jëm. képp kuy bu max président Macky Sall. yaa ngi koy bu max ci loo xamul. boo defee da nga koy bu max ngir say intérêt la nga cay yaakaar a am. mën nga caa bañ a dund. mën nga koo ba ñu dundee de. donc li am solo. Mhm. mooy ñun ñëpp ñoo am intérêt. Mhm. réew mi tegu ci siraatal mustaqim. d'accord xam nga tey. Mhm. bu njëkk ba. la xewoon. ci euh, mars événement yële. nit ñi sax ñu ngi doon sikki sàkk waaw ndax am naag amul. am naag amul. si ñooñu doon sikki saaka nag. fi mu toll nii amatuñ benn sikki sàkk. mbir mi dafa leer ci ñoom nañ. dafa leer ci ñoom nañ. léegi nag boo naan leen dama koy yóbbu fële pour ñu leeralaat ko. ñoom nee na ci ñoom nañ. donc il faut que ñu xam ne li Ablaye Wade doon wax ne. Mhm. procès politique. Mhm. kenn du ko gagné devant les magistrats mais dañ koy gagné ci ñi ëpp nit ñi li ñu wax. d'accord te loolu mooy li nga xam ne mooy li am mbir mi jàpp naa ni warut a jaral président mu xuus ci lii. d'accord ba parce que attention de mën nga armé lu ne. Mhm. bu leen fàtte ni. Euh, Lansana Conté. waaw kii nu mu tëddee. <laughs> Alpha Alpha Alpha waaw moo armé woon waa ji. waa ki ko euh, euh, wàcce. yaa ngi dégg ki ko wàcce waaw. Dumbuya moo moo ko jëlee ji woon defal ko formation defal ko formation defal ko lu ne. waaw yokk pouvoir ba noppi pour yokki yaa ngi dégg. waaw. mi fan la mujj ana Dumbuya. Dumbuya mhm. moo mujj toog mu delloo si waat xelam. waaw xam ni programme boo tëral ña ngay teg pour ñu te doxal programme bi. Hmm. ñu ngi programme. maanaam su ma la déggee alaaji moytu di programmer ci programme ñuy programmer. maanaam su su ma la déggee sànq ni nga waxee. Hmm. mooy jamono bee bari nañu doon xeex bu fekkoon ni cent personnes lañ. waaw cinquante yi dañoo bëgg Ousmane Sonko mais ñu ngi doon dute. Hmm. naan waa ji daal mën naa am def naa deful. waaye du mën nag ku ko jaay doole. waaw mais ci moment bii nag ñoom ñëpp dañoo bokk déggandoo. ndaw si ko jiiñoon viol daan ni. defuma dara. dañ maa monté dañ maa complot dañ ma wax ni ma defal lii mm-hmm. waaye li ci gën a garaaw nag mu ni liñ may def loolu lépp nag malgré joxaguñ ma liñ ma waxoon waaw mm-hmm. maanaam ba léegi joxaguñ ko xaalis loolu yëpp kon nag loolu bu dajaloo ci bopp yi dafay dafay dafay dafay il man daal sony bu mm-hmm. jàpp naa daal ma daal li may wax nii bëgg naa président Macky Sall dégg ko réew mi ku ne jiite na ko fi ba dem ah, Abdoulaye Wade Abdou Diouf jiite na kii jiite na ku ci ne jiite nga ba dem Ablaye wadd nit ñi dañoo xeex jëlee ko fi ay nit ñàkk seen bakkan ngir président Macky Sall falu d'accord président Macky Sall nag warata mën a def moins que Ablaye Wade d'accord comprendre nga mhm. nit ñi ko ko joxoon 2024 mhm. mhm. dañuy tegaat mbir mi ci pénc mi nit ñi seet kaleen doy du moom mooy seetal nit ñi ki ko doy ki ko doy